waaye ba mu deful lu ci war rek da ngay gis ni kat wax dëgg yàlla. kon ñu xool euh, fii rek euh, Pape Mor ah. ci yëpp ndaxte euh, li nga wax lu am la. Mhm. ci jàngat bi nga xamante ne kilifa gi jàngale nañu ko waaye mhm. itamit Pape Mor Pape Mor Lo li li ngay li ngay nga soxla mu ngi fi mën nga ko ko mën nga ko amee fii nii kilifa gaa ngi noonu yaakaar naa mooy Serigne ñu macha allah euh, ah. bi moom ñu bàyyi la rek nga nga nga <laughs> ah, wax dëgg yàlla kenn ña nga naadaani shiyamun tuhaqiqu jawhar al fa rakibtu nahwaka dahra kulli ajibatin min hikmatin wa malihatil awdaani wa shawqu fiika wa himmati fi raghbati bi majaahili l ayaati qad qaadaani ma mantiqun illa wa duuna taaquli ma ibratun illa wa duuna bayaani fa tazawadat nafsi bi kulli badiatin wa badaa'ici tabqa ala al azmaani wa ra'aytu annaka lirrisalati xaamilun wa ra'aytu annaka bacdu sirru amaani hada nidaamu fi lkitaabi muqaddas قد كل غيرك عنه بالإتيان طبقته وفق الزمان وحكمه وعصمته بعناية وضمان kilifa gaa ngi noonu ah moom mi nga xam ne moom la ñu yaakaar moom mi nga xam ne moo yanu mission wu yonent ki nga xam ne moo révolutionné tariqa bi ki nga xam ne moo wane ni xam-xam du doon kaddu ki nga xam ne ni moo wane ni xam-xam du doon lu nit di wane nii kese waaye jëf la boo xam ne da koy jëf nit ñi topp la Cheikh Mouhamadinil Moustapha si mi nga xam ne moo contribuer concrétiser li nga xam ne mooy mission wu maam si Ahmed Tidiane Sy Al moom mi nga xam ne moo mat njaboot moom mi nga xam ne moom maam Babacar Sy moom mi mat njaboot Seydi El Hadji Malick moom mi mat njaboot Cheikh Omar El Fouti moom mi nga xam ne moo mat njaboot Cheikh Mouhamadinil Ghali waaye mat njaboot Cheikh Ahmed Tidiane Chérifil Fatimi mat njaboot yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mat njaboot suñu borom parce que dañ ko koy gis nga xam ne innahu yata bu ma alxaq ki nga xam ne buy dox ënd du jóg buy dox jaww ji taxaw buy wax doo yëg teg ñàkk teggin buy waaxu nga yëg ni teggin baa ngi ci donc ñun kii la yaakaar tey nag gis nga ko mu ngi dalal euh, gan yi ñu rafetlu li nga xamante ne moom nga euh, jël jagleel ko Serigne Mouhamadou Moustapha Sy ci jiitu biseem bi ci biir euh, chapiteau bi waaye ci li nga xamante ne noonu la maye njaboot gi itamit ñu dundaat moomaay parce que ku ci nekk dafa am lu muy def ci yow ci diggante dox bi muy dox ba këroog muy dugg si ba agsi ci bërëbam ni nga ko waxee itamit def ci ànd ak Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si capitaine mhm. ànd ci ak euh, Mame Babacar Sy ñu ñëw fas yéene saafonte ak euh, njaboot bi ñenn ci responsable yi imam Moussa Gueye ñu gis tamit tonton Cheikh euh, Meng wala imam Cheikh Meng waaye tamit président Alioune Mamadou Dia Oustaz Gorgui Baye Pène moom itamit ñoom ñëpp gis nga jiite tey ji dafa yor ay ndaw yoo xamante ne ñu ngi ci politique bi yor ñoo xamante ne ñooy ay imam yor ñoo xamante ne itamit secteur boo mënti dem njabootu sëriñ Moustapha Sy mu ngi mhm. fi mhm. te 78 mhm. ak léegi année yi bari nañ ah, tàggat na ci ku nekk gis nga oustaz Souleymane ñoom ñëpp ñu ngi ci biir salle bi njaboot gi mbégte contentement fierté la ñu daal di am euh, ci Serigne Mouhamadou Moustapha Sy ak li mu réalisé te li mu li koy fasal mooy que jotaay bu mën a am li mu rek ci lay sëgg di wax te doo ci doyal te doo ko mate moo la wan ne la li ngay wax sànq daf koy daal di daf dafa doon waaye itam daf ko mhm. moo doon jàngale ne mhm. ah ki nga xamante ne dafa war a yenn te yennuwul mhm. coono jooju noonu rek jar na ki jar nga xamante ne dafa yennu yennu war na koo muñee coono joojee noonu ndaxte xool li mu mel Serigne Cheikh Ahmada Tidiane Sy Al Maktoum la ko doon defee Serigne Moustapha ci ay gàmmu ci ay jotaay yu ni mel coordination bi téyante loxo bi bërëb bi nga xamante ne foofu la njaboot yëpp toogee tey Serigne Cheikh Ahmada Tidiane Sy capitaine moom moo koy ak Serigne Mouhamadou Moustapha Sy waaye tamit ànd ceeg euh, Mame Babacar Sy mu nekk loo xamante ne daanaka Serigne Cheikh la ñu am Serigne Moustapha ak Mame Babacar Sy Pape Mor Lo waaw xam nga sànq dama wa raaytu annaka li risalati xaamilun wa raaytu annaka baadu sirru amaani maam si Ahmed Tidiane si almaktum dafa wax si Ahmed Tidiane Chérif il Fatimi muy tudd fa tazawada nafsi bi kulli badiatin wa badaa'i tabqa ala al azmaani moom dafa wax ni si Ahmed Tidiane Chérif yàlla dogal na ni man maam si Ahmed Tidiane si almaktum lu ñu waroon a peeg ci feetu xam-xam peeg naa ko lu ñu waroon a maîtriser ci cadre logique maîtriser naa ko lu ñu waroon a maîtriser ci enseignement maîtriser naa ko waaye ba ma demee xool yëpp daa xam ne wa annaka wa raaytu annaka li risalati xaamilun cheikh mouhamadinil moustapha si ku waxal yàlla xam ne raay naa bi annahu li risalati xaamilun ndax moom moomu moom moo yor risaala bi waaye wa raay naa bi annahu baadu sirru amaani parce que am na sirru boo xam ne nit du ko du ko du ko du ko manifester te nekk ko parce que ñoom mag am nañ fulla bu toll ni woote ci ñoom kilifteef wala nga woote ci ñoom benn daraja boo amul ñu wàccee la te wax dëgg yàlla moom mi wootewul daf ko nekk moo tax ba mu ko nekkee nag dafa normal dafa naturel mu nekk li ma c'est c'est très naturel de le voir aussi éduqué de la voir de le voir aussi beau ndeysaan xoolal complicité bi. bu <laughs> mel ni lu ni mel. yàlla yàlla moo tëddee wallaay ndeysaan na gis nga njaboot gi. <laughs> kenn ku ci nekk yaa ngi wane sa contentement waaye itamit te bi nga am ci Serigne Mouhamadul Moustapha Sy doon sa sëriñ njaboot gi kenn ku ci nekk yaa ngi wane sa mbégte sa contentement ci. Euh, fierté bi nga am kii di Mame Cheikh Ahmed Tidiane Sy capitaine doon sa capitaine comme niñ koy waxee waaye tamit mbégte la ñuy gis euh, sang bi ci anam euh, bu ñu mel ndaxte Pape Mor Lo comme niñ ko waxee léegi rek instant bii nii Moustarchidines ñii ñu ngi bég ñu ngi kontaan waaye dañuy fàttali rek ne ci jotaay bi chaque instant est un moment de méditation et de contemplation de l'unicité de Dieu unicité de Dieu doonoon thème boo xamante ne Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Khutbul Maktoum daanaka bi mu ñëwaatee parce que tamit Serigne Cheikh toogoon na jékki-jékki retrait ci yenn ci conférence ci la demee woon France en 1995 ci la ñëwaatee Sénégal mais daanaka temam yëpp temam yëpp ci unicité de Dieu la ko daal di accentuer ba keroog muy ñëw commencé ah, gàmm gi duggal ñun nag ci ay thème ci ay thème ci ay thème pour wax la li nga xamante ni tey moom la ñuy dundaat ci biir Sarr. ah jagleel ko Mame Cheikh Ahmed Tidiane Sy capitaine jagleel ko itamit Serigne Mouhamadul Moustapha Sy ak euh, njaboot gi li nga xamante ne moom lañ nekk di jël dafa mel ni njaboot gi namoon nañ ko trop booy xool rek moom tamit nga xam ne namoon na njaboot gi yàlla xam na ko weeru koor gépp kenn collégé wul kenn université ramadaawul wax dëgg yàlla métti woon na trop nag campagne yi neex na waaye métti woon na wax dëgg yàlla ñëw gis ko rek beneen mbégte lay doon wax dëgg yàlla nga xam ne rek di ko ñaanal rek yàlla ko yàlla may wér gi yaram yàlla may ko gudd fan yàlla may ko mu ñuy gunge di fi nekk di ñu di ñu jàppale ci mission yi yàlla na ko yàlla jàppale yàlla na ko yàlla sàmm yàlla ko yàlla aar musal ko ci bépp pexem noonu. ah daa mel ni dafa mel ni waxtu bi jot na parce que mise en place vingt heures la woon vingt une ah, heures <laughs> waroon yëf waroon tàmbali ñu bàyyi la rek nga clôturer ñu soog a dugg ci saal bi. ak kilifa kilifa gi <laughs> plateau bi <laughs> plateau bi plateau bi am na clôture nañu bàyyi góor gi rek ah l'essentiel mooy. na ñu yàlla may ñu déglu ko ak euh, nopp yu ko jar xol bu ubbeeku ñu déglu ko dégg ko jëfee ko yàlla ñu yàlla may xolu nangu ak xolu bëgg-bëgg nangu. yàlla na yàlla nangu ñaan yi ñu teewlu kilifa gi ak li xew ci biir salle bi yëpp ñu ngi ñëwaat ak yéen. di leen euh, bàyyi rek ñu suivre li ci biir salle bi ak euh, sëriñ Mouhamadul Moustapha Sy maam Cheikh capitaine ak mboolem ñi chargé li nga xamante ne mooy programme tey bi. alhamdulilahi rabil aalamiin wasalaatu wasalaam ala rasulillah